ربي يا أحمد على محمد حلي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل وادي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki góor ñi mbokki jigéen ñi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen ñaan nu mayante ak déglu diir bu gàtt bu ko defee nu yeggale li nu fi indi su ko defee nu mën a yewi ko ku ne yóbbaale njariñ gannaaw bu nu leen nuyoo siyaare leen ci turu sëriñ bi nga xam ne mooy maam Cheikh Anta ibnu Cheikh Mouhamadul Mortada di ko nuyu mu toog ak rakam di sëriñ Abdul Ahad Mbakke ibnu sëriñ Moustapha Massamba ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di sant di gërëm ci teewaay bi ak li nu fi indi te muy ngontum Seydina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne tam moomu ñu ko jagleel tey moo tax yàlla bind lépp ci leeram gi sun boroom ci la leerale yépp leer Seydi Aji Malik nee na min nuurihi kulla nuurin saati in xamarin nuuru nujuumi wa nuuru samsu wal xamari nee na ci leeruk Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ci la yàlla leerale jant bi leerale ci weer leerale ci àdduna si leerale ci alaaxira gi nu jëm te yeggagunu fa kon suñ bokkee dajee fii war na noo sant yàlla bu baax a baax a baax a baax sant gu wér a wér ndax moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mboolam ñi fi jaar di ay tàggkati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal diine liggéey bu rëy formé nu ba nu mel nii ñooñu ñëpp kenn rekk lañ doon way te mooy Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa ne mooy ki nga xam ne moom la yàlla yónni mooy yonent bi moom la yàlla yónni mooy xaritub yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla sunu borom sallallahu wa sallam moom la jox li ko ci ngir mu liggéey liggéey bu yaatu bu ñëpp mën a ci liggéey boobu nag tey ci lañ bokk teew ñëpp nag teew gi nu fi teew muy waa kër Cheikh Ahmadul Khadim ak waa kër Cheikh Hadji Malick ak mboolam tarixa yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñoom imam Sané ñooñ ñëpp ni ngi leen di nuyu di leen siyaare ci seen teewaay ñu xam ne tey benn baat moo nu dajale mooy la laa ilaha illa allah muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon kenn ku bokk ci kër Alaaji Maalik mbaa nga bokk ci kër Seexul Xadiim soo génnee ñaari baat yooyu fa ngay wootee bokkatoo fa kon wenn yoo wenn wenn doxukaay la benn jaarukaay la kon ku camel neneen yaa génn la ñu la digal ba bokkatoo waaye ñoom liñ doon wootee mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Euh, bala noo sore ci liggéey bi dañuy nuyoo wax ne madame consul soxna Rokhaya Ba Touré ma nga na toog nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen saare di nuyu Cheikh Abdoulahat di nuyu Konaté ñoom ñëpp noo ngi leen di nuyu waaye soxna Rokhaya fee mu toog daa wax ne foofa lay nekk ci jigéen ñi ndax wax na ne bu sëñ Abdoulahat toogee fii moo ko fi toogaaleel ndax ay kàddoom mooy kàddu Cheikh Abdoulahat ay waxam mooy waxi Cheikh Abdoulahat su Cheikh Abdoulaye teewee fii moom jarul muy teew fii kon soxna si ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci cër bi nga cëral sëriñ bi jox ko ko muy sa kilifa nga def ko sant nañ la ci bu baax gërëm nañ la ci su loolu jàllee dañuy jox Badara Mandiang mu def benn discours boo xam ne da koy nuyoo mboolam association yi nuyoo ko consil nuyoo ko mboolam këri këri diine yi fi nekk ak ak sëriñ si ñëpp su noppee nag nu doo a awee liggéey bi nag dem li ci des kon sëñ Badara bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. son excellence madame Rokhaya Ba consul général du Sénégal à Milan messieurs les présidents des associations chers invités chers amis mesdames messieurs c'est pour moi un grand plaisir que je m'adresse à vous pour vous souhaiter très cordialement les bienvenus. À l'occasion de la troisième édition Takkusaanu Yonent bi du prophète Mohammed, paix et sur lui. Je suis très honoré de la confiance que m'a confiée Géwélu Serigne Touba Khadimou Rassoul, sous connu connu connu le nom de Djili Samb, mais aussi une grande responsabilité que je ne prends pas à la légère. Il tient à remercier tous les participants qui ont contribué pour la réussite de cet événement. Serigne Abdou Lahad Mbacké ibn Serigne Moustapha à Fall donc sëriñu monsieur Djili Samb géwélu sëriñ Touba vous remercie tous ceux qui tous ceux qui sont ici présents de près et de loin madame mademoiselle monsieur je vous remercie et jërëjëfe sëriñ tuuba jërëjëf sëñ Badara kon ni ñuy def mooy dañuy jox Serigne Jamil Dieng mu wax ci turu waa kër Cheikh ak ci kuru Serigne Mansour mu nuyoo taalibe yi leen su noppee nu doog a jël kàddu gi nag. jébbal ko ki nga xam ne mooy ci teew di Cheikh Abdoul Ahad ibnu Cheikh mu ibnu Cheikh Massamba su ko defee ay kàddoom moom ñu jàllale ko suñu noppee doo ko jox sëñ Assane Fall mu def conférence bi su Assane jeexalee ñu jox jiili mu sant mbooloo mi ñu jox Saliou Seck mu barkeelu bu ko defee nu ñaan daal yeeyu kon sëñ Jamil bisimilah. salaamaaleykum mbooloo mi. ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk su turam ak santam di jiijal si nuyoo bi suñu sang yu tedd yi di waakal Cheikh Ahmadul Xadim bu ñu leen nuyoo nuyu nañ këri diine yëpp ndax ñoo fi représenté këri diine yëpp bu ñu jógee si loolu di nuyu madam Rokhaya Ba Touré. di ko jox wax wàccuwaayam mook délégation bi mu àndal yépp di sant mbooloo mi di leen gërëm ci suñu turu président Alioune Badara Bèye nekku fi mu ngi fi ci turu vice président Mamadou Dia moo ma yabal pour ma jotaleel ko kàddu yi dana diis trop ci man nag ma nekk toog ak sama kilifa di jotal kàddu yi mais lu ci dëng ngeen xam ni ñoom li ñu yéene woon gën na rafet lii di wax rek ni dañuy bokk di sant yàlla di julli seen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lu rafet lii li rafet lii mooy ki ko def mooy Serigne Djily sàmm jël tàkkusaanu yonent bi yonent bi jullit yépp ko bokk waaye ngir gën a mën a rafetal mu tudde ko ñaari xalifa yoo xamante ni kenn ku nekk def nga sa jamono loo xamante ni bii fa tabaarakallaahu ba bu tafiy wal kenn du ko fàtte muy Cheikh Abdoulaye Ahat Mbacké ak Seydi Mouhamadul Mansour Sy borom daara yi donc euh, président nee na moom mbooloo mi ñu àndal ak vice président ak présidente Ajaratu Xadi Ndaw ak mbooloo bi ñu leen bisu giilu suñu bis la bisu jiili suñu bis la ndax damay wax benn exemple si jiili damay wax xew-xewu diine bu am si zone bii jiili xàmmewul lu fa xew lépp dana ko taxawu si ñaqam ak si dooleem amul si xaj ak seen donc euh, loolu dara gënu ko rafet donc bu bu dollee si loolu woote lu mel nii bëgg mu gën a rafet mu boole ko ñëpp yàlla na yàlla jàppale ko si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen wax di daal bis bi buñ ko moroon laalal ay tapis or wala ñu defal ko ay lampi jamaa wala ñu defal ko teraanga bu ëpp lii dañ ko defal wax dëgg yàlla sagal nañu yàlla na ko yàlla sagal ambition bi mu am aussi ba am initiative bii di def takku saanu yonent bi di ko rafetale ni mu koy rafetale yàlla yàlla rafetal jëme ci moom euh, lott nañ nag si yëkkati kàddu di remercier encore madame Rokhaya Ba ture di ko ñaanal ni ko mission yàlla na ko si yàlla jàppale gàntuwul daray sénégalais yi mënoon ni kat xate naa si sori na waaye nag wax dëgg yàlla loolu lépp waxu ci fu ñu ko gars yi woo mi ngi fa yàlla yàlla jàppale ko yàlla yàlla gën a oyofal sa mission ba réussite bi nga si bëgg yëpp yàlla may la ko si barke yonent bi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Jamil kaddu yi rafet na tënku na am na solo kon noo ngi lay siyaar bu baax yow di la sant di la gërëm di la wax ne nga jottilil nu nuyoo sëñ Alioune Badara Bey ak mbooloom waa kër yi yëpp noo ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci taxawaay yi ak àndandoo gi nekk benn te muy waxta waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu nun ñëpp nu sax ci kenn bañ koo bàyyi yàlla nu ko yàlla defal su loolu jàllee kon dañuy dugg ci ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Cheikh Moustapha moom Cheikh sàmba moom mi nga xam ne dafa ànd ak jiili jiili def ko sëriñ def ko xarit def ko wëllëre def ko léppam tuddee ko li mu ko tuddee mu jóge ko euh, Mila jóg ànd ak i bokkam ànd ak consulat ñëw fii ngir bis boobu rek kon turu sëñ Abdoul Ahad ci lay bëgg a nuyoo yéen ak ci turu madame consul général Rokhaya Ba Touré wax leen li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ma jot li leen ko ci kaddu gu xeemu ngeen dégg ne du samay kaddu kaddu yu sëriñ bi laay jottuli lu ci dëng nag sama mànkite la waaye moom ni ma ko waxee woon moom jotal na te mat kon buñ leen waxee asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo leen di nuyu ayyukumul mustamiuuna al kiram aykum alxaadiruuna walxaadiraat aykum alixwa walaxawaat nahnu aykum bi taxiyati alislaam wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Abdou Lahad di jiital ci nuyoo bi sëriñ maam Cheikh Anta Mbakke mi nga xam ne mooy doomi Cheikh Mouhamadul Martada ibnu Cheikhul Xadim suñ noppee ci moom ñu teg ci Cheikh Abdou Lahad Mbakke ibnu Cheikh Moustapha moom Cheikh Massamba buñ noppee teg ci rakam sëriñ Basiiru Mbakke moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Massamba suñu noppee teg ci sëriñ Masourang Mbakke ibnu sëriñ naa moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke suñu noppee teg ci sëriñ Abdourasakh Mbakke ibnu sëriñ Modou Fati Xari Mbakke ibnu Cheikh Massamba suñu noppee nuyu sëriñ Mamoun Mbakke ibnu sëriñ maam eh, daa ibnu sëriñ maam Mor moom Daaru Salaam suñu noppee itam nuyu. sëriñ Abdul Fattah Sall moom itam di ko nuyu di nuyu soxna Roqaya Ba Touré conseil sénéral di nuyu sëriñ Moustapha Konaté di ko nuyu di nuyu Mamor Jiite loolu mooy délégation bi nga xam ne moom la sëriñ bi àndal ñëw ci bisub jiili bii nga xam ne da ko duppee sëriñ Abdul Ahad kii di turandooy sëriñ Abdul Ahad nga xam ne moom mën naa wax ne loo xam ci moom lu mu bari bari bari bari bari bari soo jëflanteek moom da xam ne ki ñu ko tuddee jël na ci moom lu baree baree baree bari te noonu la koy doxalee te doxalin wa amu ca xaj ak seen xamu ci ku ko jege ak ku ko sori kooy mooy Cheikh Abdoul Ahad nee na mi ngi leen di mi ngi lay nuyu yow sëriñ Jiili di la sant di la gërëm di la siyaare di la ñaanal yàlla nee na lii nga ko jagleel nga xam ne guddi la goo xam ne am ngont lañ ko tuddee tuddee ko ki nga xam ne mooy xayrul xalqilaahi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mbànneex ak mbégte mu gën a rëy loolu nee na mësu koo am mi ngi koy doog am tey ñu jël lu tul ne ngont tudde ko yonent bi jëlaat ko jox la ko nee na loolu cër bu rëy la bu mu sagoo la bu ko ñor la bu am solo la ci moom ndax nee na moom amul droit génn yonent bi amul droit génn Cheikh Massamba amul droit génn Serigne Touba nee na kon bu ñu ko tuddee ngont ma yonent bi noona loolu bég na ci ci ko ko tuddee sant na ko bu baax gërëm na ko nee na mi ngi leen di seereel yéen ne jàpp ne jiili bu yàgg te gën na koo jàppaat tey te mi ngi leen di ñaanit ngeen jàppale ko ko ndax moom day nii mu doxee ba nga xam ne bu wootee ñëpp wuy si ko muy tiijaan ak xaadir layee na ñëpp cene be suñ bokki joolaay ñëpp ay wuy si jiili loolu ci doxinam la akuk maslaam ak wut gum wut nit ñi ba yàlla jox ko nit ñi moo ko may loolu sëriñ bi nee na mu ngi sant jiili bu baax di ko gërëm di ko seereel bokki boppam yii di leen xamal ne defal na ko l loo xam ne mu amulu payam nee na ay kàddoom lott na sax ci mu sant jiili ci li mu ko defal waaye nee na xol bu sedd ak xel mu dal moo tax mu ànd ak bokki boppam ak i rakkam ñëw fii agsi ci bis bi ngir fekke lépp ngir sargal jiili sant ko seereel ko mbooloo mi ba ñu xam ne defal na ko lu rey loolu nag Cheikh Abdou Lahad nun soo ko defee sant nañ ci bu baax nuy gërëm nañ la ci ndax nu itam dañuy ay taalibe yoo xam ne sëriñ Touba lan am ak ma sàmba su ñu la jagleelee bis te mënoon laa tudde leneen te nanguwoo ko ñu tudde la lu baax lu jëm ci rasulullahi nga nangu koo jël nangu fee teew ànd ak say bokk mbàkke sagal nga nu te noo ngi ñaan yàlla na la yàlla sagal yaag say bokk ak ñi nga fekk ñépp ci barke sëriñ Touba di ñaan itam ci barke sëriñ tubaa kilifa yi diine yi nu yàlla jox dale ko ci Cheikh Sidi El Makhtar ba ñépp yàlla leen fi yàlla yàggal te wéral leen te guddal seeni fan ba liñ bëgg a liggéeyal yàlla bëgg koo liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu matale lépp ci barke Serigne Touba kon sëñ Assane tafadal bismillah aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallam bismillahi irrahmani irrahim wala taxsibanna alladina qutiluu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yursaquun farixina bima atahum allahu min fadlihi wa yastabsiruuna billadina lam yalxaqu lam yalxaqu bi min xalfihim wa ala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun sallim janaabiya min alaalayni wa habli al amaana fi daarayni wa li yahab salaamatan wa aafiya waj'al xayaatiya xayaatan saafiya rabbi ajib wala tarudda daawati bi jaari xayril mursalina qudwati duaai al yowma ya rabbi stajib abadan ya allahu ya barru ya wahaabu ya samad bokki jullit yi bokki taalibe yi maam Cheikh Sidi Muxtaar maam Cheikh Anta ibnu Cheikh Ahmadul Murtada Cheikh Abdou Razaq ibnu Sëñ Modou Fati Xari Cheikh Abdoul Ahad mu Cheikh Moustapha Masamba Cheikh Mamadou Mamoun mu sëriñ Maam Moor mu Cheikh Mamadou Mamoun mu Cheikh Moustapha mu sëriñ Masamba ak mboolem kilifa yi fi teew yépp ginnaaw bu nu yàlla sëriñ Jiili Mbakke ak sëriñ ma sorang sorang mi nga xam ne doomu sëriñ Seexuna la mu Cheikh Abdoul Ahad ñu duppee ko maamam ja nga xam ne estuwaaru jumaay Tuubaa du jóg mukk te aw turam lëngu wala 14 18 ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam joxaat sëriñ Touba sunu lépp ku ngir jëmmi yàlla noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci bis bi di nuyu bu baax soxna Roqaya Ba di nuyu itam ki nga xam ne moo dajale mbooloo mii muy sëriñ Abdou Khadir Samb ni ñaan yàlla sunu boroom ci barkeb Cheikh Abdul Ahad Mbakke bu ma ne Cheikh Abdul Ahad léeg-léeg nag yonent bi laa ci jublu ndax asalu man laysa lahu kufuwan ahad salaatuhu anni ala Abdul Ahad kon rasulullah la ko Sëriñ Tuubaa tudde kon noo ngi leen di nuyu ci turu kilifa yi ma wax te di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci bis bi di ñaan sunu boroom ku fi teew lay sa aajo yàlla na ko yàlla faj defanu texeek àddina ak texeek àllaaxira ci barke borom tur wu tedd wu sell wii di Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne keroog dam dikkee jamono la sëriñ Touba wax sëriñ Xamsatu Jaxate maam Kale Sëy ak sëriñ ak maam bi Biray mbakke li ma doon ñaan de biig li ci ëpp la ma sama borom xamal ne nangu na ndax xam ngeen lu tax ñu ne ko déedéet mu ne yàlla jox na ma biig doom joo xam ne am naa yaakaar lool ci moom ci ne dana ma taqaleel diggante dëgg ak caaxaan mooy Cheikh Abdoul Ahad daal di wax ne aw turangoog nag ma joxe woo xam ne képp ku ko man te mu set doo dem safara mag ñi di ko jàng leen te ñu mujj ko bind mbind mu mag tax ko ci buntu kër ba ñuy jàng lu ñuy prononcé tur yi na Abdul Ahad Sëriñ Tuubaa moo ne ku ko man te set doo dem safara kon noo ngi sant yàlla ci ngoon gii nga xam ne dañ ko duppee sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu doon lépp ñëpp waaye di lépp sëñ Tuuba muhammadun xayru man yamsi ala qadamin muhammadun xayru man lillahi qad sajada mahat mahabbati al muxtaar sayidina xubbul maxaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa lahu abdan qadiman lahu muskaana di sanada sëñ Tuuba nee na képp ku ma sujjóotal yàlla wala nga doxal dëggul tànk rasulullahi moo la gën yonent boobu day jox naa ko sama bopp jox ko sama njaboot bu fekkoon ne dañ koo tay la fi barab boo xam ne deret moo ko fay jële jekk naa ci sotti sama deret man xaadim rasul sotti deret sama njaboot sotti deret samay taalibe ñu dog ñu jote ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne rasulullahi su ma fekkoon jamono laxal tànkam ba du laal suuf mukk ndax sama lex bii laa koy lal taayal mu ci jaar dib du ko jam tànk ba du laal suuf ak cofeel foofu la ma yem kon sëñ jiili ginnaaw loolu lépp nu ngi lay sant ci jëf ju rafet ji nga def muy lëkkale ak boole ak taaral loo xam ne dafa taaru woon démb waaye dafa war di wéy warta am frontière warta yem xanaa ñun ñëpp daanu fàttaliku 1980 te discours Cheikh Abdou discours Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bu siw ba ba muy wax ne diw murit la diw xaadir la diw tiijaan la dafa mel ne diw dafa ñuul diw dafa xeer diw dafa xeereer te wuta bokk ndey ak te foo fekkee ñett ñu bokk ndey ak bàyyi ba noppi am ca fay tam morom ma bàyyi ka ca des dafa yéewuwul waaye mënut a fexe bañ tam ca kenn te tamaalewul leen dama tamaalewuñ ko ndax ñett ñu bokk ndey bàyyi benn biir rek la biir teg ca lu am solo kon li ma leen di digal mooy bu ngeen gisatee kuy wax ci ak tijaan lu warul te dem murit wala murit bi wax ci tijaan lu warul wala xaadir bi wax ci murit ak tijaan lu warul dama leen ko sant mooy fa adil anum ata yaqulu fi hadisin xayrihi kon dafa dundoon démb waaye dafa war di dund di nii pour ta am bi matee dal jàng sëriñ Tuubaa yëkkati ko moo ak sëriñ Saalihu ak sëriñ Shuaybu ak sëriñ Abdou Samad teg leen ci loxal sëriñ Xamsatu Jaxate nijaayam sëriñ Xamsatu yëkkatiwaat leen teg leen ci loxal sëriñ Alasaan Jaxate mu jàngal leen alxuraan mu xam rek moom sëñ Abdou Lahad di nit ku bëgg sëñ Touba doyloo ko wóolu ko jox ko léppam bëgg gi bëgg sëñ Touba mën nañ cee joxe rek lu gàtt mooy benn bis koo xam ne moom Cheikh Abdou dafa am añ bu doon toggaloo soxna may muun a Mbàkke doomam ji nekk ko sëñ Cheikh Jaxate moom sëñ Abdoulaye moom sëñ Hamza yàlla dogal sëriñ Saalihu Mbàkke ñëw fa doon wax sëriñ Seex Jaxate ngir mu wat ko mu di ko barkeeloo ca wat ga nga xam ne sëriñ Xamsatu waajuram daana ko wat Seexul Xadim far añ fekk ko fa sëriñ Seex dugg ci biir laaj soxna may muuna ndax fa añ bi toll mu ne ko sëriñ Abdou Lahad de moo doon toggaloo añ mu ne ko sëriñ Saaliwoo ngi fi de mu ne ko ñoo ci bokk yam gi kon ginnaaw moo ma ko doon toggaloo du sëriñ Saaliwoo ngi fi naa ko jox sëriñ Saaliwoo bi soxna si jëlee añ bi jox ko Serigne Saliou Serigne Saliou jëfandiku ja ba noppi soxna may mun a takkaat ko ba mu jekk dem yit ko Cheikh Abdoul Ahad ne ko loolu nga gis nag muy nur lu ñu laal Serigne Saliou Mbacké moo fa ñëwoon ma jox ko ko xam ne yéen a ci yam mu jëfandiku ba noppi ma door la koy indil Serigne Abdoul Ahad tudd yàlla lamb poosam génne juróom fukki junni ne ko ma neexale la ko yow mi fexe ba ma lekk desu doomi Serigne Touba kon bëgg Serigne Touba foofu la man yem kon ñu ko bëgg sëñ Tuubaa doyloo ko ko jox ko léppam bindoon na ay bayit ca bu teel di ca wone ak jeexam takk ci sëñ Tuubaa axtaytukal yawma bilan qitaa yi kulliyati yaa xaadimal mutaay bis naka tey jox naa la sama lépp ci lu dul dog yow xaadimal Mustafa adxaltu fii jaybika yaa mawlaaya kulliyati fa takfinil balaaya yow Cheikhul Xadim dugal naa sama lépp ci sa jiba ci sa poos te nanga ma fegal balaay fal taxmi qalbiya an iltifaati ila siwaaka wa anil aafaati na nga ma aar na nga aar sama xol mu bañ a di geesu jëm ci kenn ku dul yow da nga musal ma ci gàkk yi wal tax mi mantiqi an anik sharil kalaam fi xayri ma tarda wa kun liya imam mu ne na nga aar sama làmmiñ ci baril wax joo gërëmul te nga na nga ma nekkal yow seexul xadim yow mi sunu imam wa sun jawaarixi an al qabaixi wa habliya al ismata min fadaaixi na nga ñoŋal samay cër ci ñaaw téef te musal ma ci gàcce wal taqi umriyal fasaada abada wa kulla suwayin saaridan ta abuda na nga fegal sama dund ak yàqu ba faw ak ak bépp ñaaw téef mu doon ma doon borom borom ma doon borom gërëm lu sax loolu def na ko ak jaayante ci sëñ Tuubaa ci bu njëkk Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon doonoon gor su gore su mën a muñ te gore di nit ku maandu te sell di ku bëgg dëgg te woyof di nit ku sàmm te lewet di ku wegu te fonk doomu aadama doonoon ku nangoo sonn ci lépp luy fàttali ak lépp luy xettali ak lépp luy rafetal diggante bu yàqu mu doonoon boroom jataay bu texe boo xam ne ku ko xam sopp ko ku ko miin mu saf la ko jaxasoo moom mu soppi la mu doonoon jëmm joo xam ne benn jikko boo jàngat ci moom wala nga wala wala nga setantal benn jëfam dafa la doy sëkk ak waar mu doonoon ku mat sëkk koo xam ne daa boole mat ci jëmm mat ci jikko mat ci bind mat ci melo mat ci jëflante da doon nit ku nuur ci liggéeyal sëñ tubaa ak jaamu yàlla kenn ni ko sëñ tubaa daan santaane kenn ku ne xam ne ne sëñ tubaa lu mu daan santaane li cay jiitu mooy jaamu yàlla ak liggéey liggéey ak jaamu yàlla daan ci joxe misaal bu gàtt mas naa am ku dikk ci sëñ tubaa ne ko mbakke damaa amul ndey awma bàyyi awma nijaay ma bëgg a toog fi yow def la ngay sama ndey di sama bàyyi di sama sëriñ bi ne ko dikkal dellu soo demee nga fab ragal yàlla def ko muy sa ndey fab jaamu yàlla def ko muy sa baay fab liggéey def ko muy sa nijaay kon ñett yooyu danañ la mën a wuutu ci ñett ñooñu waaye ñàkk ñett yooyu jurul toog fii fi nun mu doon kon ku nuur ci liggéey comme ni ko sëñ Tuubaa santaane tàmbali nag di yar nit ñi ci liggéey ak jaamu yàlla ak jàng alxuraan di dàkk bëggug sëñ Tuubaa ci lépp lu mën nekk muy nit ku dëggu ku sàmm ku am diine di borom pas-pas di borom pas-pas di borom pastéef bu rëy boo xam ne bu ne bërët na muy doxe mooy ku dem ma dem ku demul ma dem mu nekk ci kon ba nim doone mag muy rafet rafet boo xam ne daf ko roy mu doon doonoon jàmbaar joo xam ne soo dee jàngat wala ngay jàngale ak dundam da ngay dellu ci tontu lu rëy la sëñ Tuubaa tontu woon Xaadima Jaxate Kala muy xasidaam googu di taiya bu neex boobu di xoqal bu kaaw te léeg-léeg am ñu ci tuumaal xaadima jaxate kala wax ne xaadi dafa bind benn baatu xoqa yónnee ko sëñ Tuubaa ñu am ñenn ñu umpule te settantaluñu di wax ne booba buur yi daan atteel ñoo fi nekkatul dag yi nekkatuñu fi mu yëg wiitaay ci xolam alal yi daan jóge ci loxoy buur yi dugg ci loxoom loola dog muy laaj sëñ Tuubaa ndax warees na leen a jooy waaye dañoo xoolul bayit bi xaadi yónnee sëñ Tuubaa waaye kon dañu wax ndax bayit bu njëkk bi lépp la xaadima jaxati kàlla bind xoqal bukaaw ala saadaati l amwaati tabkil araadi alayhim kasamawaati def naa tabkil araadi alayhim kasamawaati suuf ak asamaan duñ jooy mukk buuru adduna kon ña tax muy jooy mooy gaa yu baax ya nga xam ne ñooy nit yàlla yu mag ya nga xam ne dañoo jaay seen lépp yàlla seenug jot seenug am seenug njaboot seenug féex seenug xat seenug wér seenug wér lépp ñu jaay ko suñu borom tabaraka wa taala ngir ñu sàkku ngërëmam sëñ Tuubaa tontu ko kaanu yaud sëñ Tuubaa tontu ko abki alayhim wa arju fil bukaay xadan ridwaani man fii xaaboo bil xalaawaati di barkeelu moom ci jooy sang yooyu muy wax mu jàll nag ne kaanu ibadan bi taatin li rabbihim wa kaana jallalahum rabban bi minnaati kaanu yauduna darkal wirdi ma sibain min alxalaali min asbaabi almusibaati tàmbali nag di joxe seeni jikko ak seeni melo kaanu ida allaylu arqa sitra sa xalakin qaamu siraan li ixyaai dujunaati mu ne ñoom nekkoon nañ ay jëmm yoo xam ne bu guddi gi masaan yoor rideau mi dañuy jóg jëm ci seen borom di màggal lëndëm lëndëm guddi googu mu ne ñoom baaxu xudulan bi zikrillahi xaaliqihim fa nawma fii layli baaxu bil munaajaat dañoo jaayoon lépp luy neen jënde ko tudd yàlla mi leen bind jaay seen nelaw ca guddee jënde ko déeyaale ak seen borom tabaaraka wa taala mu ne tajful madaaji'a fii laylin junubuhum naasiina salma wa layla bil bushaaraat mu ne ñoom bu guddi masaan jot bañ tëdd ci seeni lal balal yi leen lëgg di neex mbaraan yi nugg dañ naan ñokket jóg fàtte seen soxna ya ak seen taaree jëm ci seen borom tabaaraka wa taala moo tax alquran tàgg leen tatajaafaa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna ba aaya ba mu ne fa xay suma barazat layla bi bahjatiha anhaata walaw ilal mawla bi taaati mu ne ñoom bu nekk di jaamu seen borom ba kenn seen soxna feeñu ba dañ koy won gannaaw jublu ci suñu borom tabaaraka wa taala di deyaale moom yansawna layla wa soda fi qiyaamihim wa mustaanisiina bi azkaarin wa ayaat mu ne bu ñuy taxaw di jaamu yàlla dañuy fàtte soda ak layla muy seen soxna ya jënde ko tudd suñu borom ak jàng ay alquran mu ne te ñoom kat bu ñu masaan toog bay waxtaan tam la ñuy waxtaane duñu waxtaane mukk waxtaanu addina hadisuhum zikru muxnin naafiin samadin la zikru indin walum naa fi maqalaati loolu moo doon seen waxtaan mu ne topp ba wax yoon wa jaar la ñuy def ak di ko yóbbuloo laxasaay yi ñuy takk seen digg ak yi ñuy dimbandikoo sumtun wa juuxun tawilun baadahu zahrun wa uslatun an suyuuxin bil ishaaraat ba ne tariquhum qasdu wajhillaahi doona hawa ma al usuri lati tanfirau naati loolu mooy jikkoy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa saxoon dakk ci tuubal yàlla suñu borom di ko santaane fu mu toll wëlbati ko jeex takk ci xaw xawfu ak rajaa ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yaakaar Sëriñ Tuubaa dëgg-dëgg yaakaar te ragal gam ragal yàlla musta muur yaakaar gam yaakaar sëriñ yaakaar gam yaakaar sëriñ tubaa muur ragal gam ragal yàlla radiallahu anhu mooy min tawbatin xuddimat xawfin rajan maahu iksaaru xusnin dawaaman bil xanaati wëlbatiku di nit ku dëggu àdduna moom si Abdul Ahad ci fànn yépp di nit ku sàmm di ko wakkiilu ci yàlla taqoog muñ ci yépp waxtu ak lu ko mën a metti wasuhudu fi kulli fanin baadohu waraun maa tawakkuli sabrun kulla saati si Abdul Ahad Mbakke xeex na ba not bakkanam sax dakk ci sant yàlla wëlbatiku lépp suñu borom dogal mu neex ko jihaad jooju mooy jihaad ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sahaaba ya keroog fatxu Makka bi ñu ubbee kaaba gi yonent bi jël yàppam yoroon dikk daaneel xërëm yañ daan jaamu ci biir kaaba gi tudd ko ay yàlla naaqul jaa al xaq wa saaq al baatil inna al baatil kaana saxoqan daal di gees sayyidina Bilaal yéeg ci kaw kaaba gi noddu saxaaba yi jooy rasulullahi geesu leen ni leen xaraj naa min jihaadil ak asxar ilal akbar jóge nañ ci jihaad yu ndaw ji ñoo ngi jëm ci yu mag bi saxaaba yi xoolante ndax kenn ku nekk jaasi ji nga tëye ponk bi mi ngi kole ci sa loxo ndax ñu xool li dee tey ci ay yéefar ak li génn àdduna ci ay jullit ñoom ñëpp tëdd ay néew yonent bi ne leen lii mooy jihaad ju ndaw kon lan mooy jihaad ju mag mu leen jihaad ju mag mooy xeex ak sa bakkan ba not ko ne war ko ne ab gawar di ko fél di jëmee fa la neex te moom bañ laa jëmee fa ko neex jihaad jooju ci la Cheikh Abdoulaye Mbacké nuuroon mooy jihaadu nafsin wa shukri bil qadaa iridan tarkul tifaati ila xaali bariyaati mu doonoon sang bu ragal yàlla di ko jub di nit ku dëggu ci wax ak jëf di ko dëggal te nangu dëgg di borom fit wu dëgër di nit koo di nit koo xam ne koo mën a doon ak loo mën a doon bu ngeen jàkkaarloo moom kam doon rek lay doon du tiit du raf du deng-deng du rët du jàq ragalul ab noon yaakaarul ab xarit yàlla képp la ragal Sëriñ Tuubaa rek la yaakaar muy koo xam ne soo ko dégg soo ko dikkee ak njub ak rafetal dangay ngay fekk mu gën a lewet am xar waaye soo ko dikkee weneen melo ba mu war laa wax dëgg day mel ne gaynde nag ñëloor ko met sa kanam moo tax ci atum 1973 bi ñuy inauguré forage boobu nga xam ne moom la njëkk a taxawal ci Touba bi président Senghor ñëwee ba ñu toog te Senghor am wax ju mu bëgg nu mu bëgg a jëlee wax ji ak fu mu ko jëmee Cheikh Abdoulaye ko tuut baaram ci mbagg ne ko ma xamal la ne la président jii ñu lay wooyee keneen mën na ko wuyoo ba nag ba liggéey ngay rombante moom ci mbedd yéen ñëpp ngeen di dund waaye man Abdou Lahad xalifa jii ñu may wooyee waxtu woo dégg ci kaw suuf maa ngi ci biir suuf daana wax ne ma jóg mbooloo mépp dar ma ak seen yëngu ba nu àgg fa sëñ tubaa te dara du ci dëgg ma jóg kenn képp topp ma ba nu àgg fa sëñ tubaa te muy dëgg moo a ko gënal man ragalu ma wéetaay sëggu ma wéetal ci njub ak dëgg rek lay àndeek nit daal di wax ne li ma fas yéene nag mooy bu ëllëgee bu sëriñ tubaa taxawaay ñu taxawal ma mbooloo bi ma jiite woon taxaw bu ma sëriñ tubaa ne abdoulahat ananoo jiite woon mbooloo mi ñaari baat rek la koy bu keroogee la ma koy wax mooy mbooloo ñii day lépp loo ma fa wax wax naa leen ko lépp lu ñu ma jox def naa ko ci yow mii mu wucci noonu ba ni mu xëyee doon sëñ Touba keroog ba mu ne jaleñ wuutu alxaaji Fadilu Mbàkke ci xilaafa gi dafa daal di wax nit ñi ne leen maa ngi leen di xamal ne lépp loo xam ne dee la ko jox bés dana ñëw dee xañ la ko fii ma toog day la ma waxoon laay waxaat tegte lu dara lu dul ñi fi nekkoon ñëpp ñu ngi ci biir pax mi yow yaa nekk ci bunt bi daal di wax ne na ngeen xam ne adduna yëngu rek la baaxoo am dal waaye bu dee yëngu lu yëngu ba rëy rëy rëy dana wax ne tekk ba mel ni la yëngu kon bu yëngu na ngeen jël seenum xel dawal ko ca dal ga muy dal ndax bis buy dal bañ leen yóbbaaleen lenn lu ngeen di si si abdulahat daana wax ne nit ku nekk lu sa xam-xam gàtt gat war ngaa xam yett ci sa bopp na xam li nga bokk xam li nga moom xam li nga doonul dara li nga moom na nga ko téye sa fukki loxo juróom te bu la dara jaral wàcce ko muy li nga bokk na nga seet na ko seqal ngeen waxtaane ko teg ko fu wér bañ juum talu ja bañ juum du jàmm li nga doonul dara nag boo bañee gàcce ak yaraanga nga génne ci sa bopp muy koo xam ne foo ko fekk mi ngi laaye biir jaame yàlla yi damaa mas la ñëw ànd ak alaaji Modou Mamoun Niang euh, da moom daan def koo xam ne léeg danga koy fekk mu ne ci activité boo xam ne njax njaxlaf gi day day feeñ ba mel ne ànd ak mbégte léeg-léeg nga dikk fekk mu ne ci geneen anam bis boobu nag ma dikk ànd ak alaaji Moodu Maamun ma nuyu ko mu ne ma sëq ci mbagg ne ma Assane Fall xaadimul xadim mbaa wópp ma ne ko déedéet mu ne ma boo addina addina boo ci nekkee te bëgg am jom ndax xam nga nooy def ma ne ko déedéet mu ne ma da ngay fexe ba ku la diir bu mu la jam waaye ku la jam bu mu naa ni tàllal ma ñaanal la muy koo xam ne kon noonu la doon doxe muy sang bu laa biir boo xam ne mosula dencal mosula denc xolam lenn loo xam ne mën naa ñoddil jullit ñi njariñ moo xam wax la moo xam jëf la muy koo xam ne suñu boroom daf ko yee ba mu yewwu mu yar ko ba mu yaru mu xamal ko ba mu xam mu yëkkati ko ba mu kawe muy jenn daraja ju bokk ci daraja yi Sëriñ Tuubaa yu làmboo junni junni mbóot ak i ak i kéemtaan mu doon jëmm joo xam ne ay waxam mos la weddi jëfam ay jëfam mos weddi waxam te lépp lu mas a digle moo ca man kudul moom lu masa a tere xetam mosu koo xeeñ yëngoom yépp ci yàlla rekk lay jëm dalam gépp itam mooy ne tekk ci lépp lu Sëriñ Tuubaa gërëmul muy ku ñeewante nit ñi di ko dëddu adduna di ko won gannaaw lépp luy neen ak i caaxaan te lépp lu mas a yëkkati jëme ci yàlla wala ñu yëkkati ko jëmale ci yàlla dana ci jëf lu ñëpp di yem booleeg xat gu metti mosula am genn féex ci benn bis wala wenn waxtu ci diir bi mu nekkee xalifa bi sëñ Tuubaa ba nim gonte fa rañaane fa Tuubaa belal wuy yàlla fekke xaadimu rasul inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waxtu wu nekk kër gaa ngi fees buntu kër baa ngi fees mbooloo mi dugg ak ak génn kenn ku nekk di indi sa yitte ak sa aajo muy faj yépp te benn du ci jaxasoo nga xam ne booy xool kër gi day mel na kër sëñ Tuubaa meloon ci njaareem ba tax seex ba tax borom mashar naa ko taraan tara naasa afwaajan ila baabi daarihi ka makkata yowmal hajjil akbar lil amal mu ne da ngay jàkkaarloog nit ñi ñu def ay mbooloo ca kër këram ya mel ne bis aj gu màgg ca makkatal mukarrama te seen njariñ rek moo leen Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa xamoon adduna xame waram ak i naxam ba teel ko woon ginnaaw ba tax àdduna rus fi kanamam di ko torox moom daal xat kaana taarika dunya la baqa alaha fa saara qaasida la fana alaha dafa xamoon ne àdduna yëmul fenn mu woon ko ginnaaw xam ne ëllëg yëmul fenn mu teel koo laxasaayul mu ko dëgëru fit di ko dëggal di ko ñeme dëgg di koo xam ne mosula jay kenn ngir dara ak koo mën a doon ak loo mën a doon ak loo mën a amee di ko xam ne du tagge kenn lenn wala mu nawe kenn dara lu lislaam aku taalibe ak fulla aku fit ak njàmbaar ak dëggal Cheikh Abdul Ahad kennu la woon lu dëgër lu bokk ci kenn yenu diine suñu borom bi nit ku wegu la woon di ko am xel di ko sàmm di ko tabe di ko yàlla teral te màggal ko ci xol yi ak xel yi muy ko lewet ku mën a jéggale di ko sell ku mën a muñ di jàmbaar joo xam ne yaakaara sëriñ Tuubaa ñoo amoon ci moom ba wax ko mag ñi tësul te def na ca jëf ju jéggi dayoo yoo xam ne ku làmb daj ko ku geesu gis ko ku déglu dégg ko muy koo xam ne xotti na fi yoon woo xam ne ku ci jaar foo mën a dem ci àdduna dañu lay roy waaye doo roy kenn ak lu mën a doon Cheikh Abdoul Ahad di Cheikh Abdou Lahad Mbacké siggal na sëñ Tuubaa sagal na képp ku di murit yokk na taaru murit te aar na ko mu doonoon borom xam-xam bu laa biir boo xam ne du tëye ci làmmiñam lenn loo xam ne su génnee doon njariñ ci bindi fi muy sang boo xam ne daa jëfee la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne laa yuminu ahabakum xataa yuhiba li aqihi ma yuhibuhu kenn ci yéen njiritu kenn du mat ci yéen lu dul li nga bëggal sa bopp da nga koo bëggal sa mbokk Cheikh Abdou Lahad dencukaayam moo doon xolam lam ca daan denc muy ngën ji lu ñuy denc mooy tudd yàlla ak làmmiñ bu koy sant fu mu toll nam ko ñaane woon ca xasidaan ko neex ga wax ne wal tuf ni man teqiya fi ridaa yi anka maa sana bilam qidaa nanga na nga jeexal sama làmmiñ ci di la sant ak a gërëm ci lu dul dog ba mukk la mu defoon fàggu téefam bu mu daa fàggu mooy jëf ju baax ju jëm ëllëg waaye du àll ni mu ko waxee woon ne waskiran jiwaarixi fi ma tuhib laka min al xidami yaa xayra muhib yàlla na nga ma yàlla na nga saxal samay cër ci li nga bëgg ko la ko liggéeyal yow mi nga xam ne yowey ngën ji ko ñu sopp moo tax daawul neenal benn jamono foo ko fekk mi ngi def lu am njariñ di ko santaane booleeg di wax ne démb jàll na ëllëg dikkagul tey yaa ngi ci lépp loo amul woon démb faat na la rëcc na la na nga góorgóorlu ci tey ndax ëllëg kët yàllaa ko moom te nu ko neex lay dikke waxtaanam yépp yàlla lay fàttali nit ñi jëfam yépp yoonu aljana lay tegtale Cheikh Abdoul Ahad mosul dañ di digal nit ñi lu leen di jariñ adduna ak alaxira di leen wattandi ko loolu leen di lor adduna ak alaxira mu nit ku doon sëriñ Tuubaa ci wax ak jëf noonu sëriñ Tuubaa meloon nga xam ne bu wax day mel ne kàddu gu wàcc asamaan dënu gu wàcc asamaan moom it kàddoom ya yam daan sànni muy jóge ci xolam dal ci xoli nit ñi daf daal day dal ci xoli nit ñi kem ni marto bi dale ci kaw dëkk bi Cheikh Abdoul Ahad kàddoom mosul la daanu mukk ñu naa lu mu wax wala lu mu wax muy ko doon sëriñ Tuubaa ci fànn yu bari moo tax bi sëñ Tuubaa dikkee tànn turu abdullahi wa xadim rasulihi jaamu yàlla buy liggéeyal yonent bi dafa tànn bay ubaydu rabbihi wa ibnu sayxihi njaamu boroomam di doomi sëriñam muy rafet rafet bu ràññiku bokk ci rafet rafet rafet sëriñ Tuubaa yi ko yàlla jagleel si abdul ahad dafa daan liggéey adduna ngir namm alaxira adduna jublu ko mu jaay ko jëndi ngërëmul sëñ Tuubaa xamoon na ne fii ko fi nekk da war a jëf moo tax mu daa wax ne Euh, njariñ kenn mënu ko am ndare ginnaaw coono képp ku yaakaar ne mën ngaa nelaw ba yeewu la nga bëgg nga am ko yaa ngi nax sa bopp ndax loolu la may dara di wax ne kaala day bu njëkkee ci bopp te jaarul ci ndigg xalset naa wàccaat bopp dellu si ci ndigg waaye bu jaaree ci ndigg ba sax fa la mu fa war a sax bu fa jógee ba dem ci bopp du fa jóge mukk ni sëñ Tuubaa wax ne nabaxtukum maam ala kadin bara lii xabla an araridan mu abada yee naa leen yéen ñépp ci coono bu ma daj bu biir lu njëkk may am ngërëm lu yemul fenn looloo Cheikh Abdoul Ahad Mbacké da ko defoon ak laxasaay moom Cheikh Abdoul fu mas a fekk dëggug yàlla gi yëkkati ko na jox yàlla fu mas a fekk dëggug yàlla gi fab na ko jox yàlla du jay kenn rëgalul kenn ngir lenn daana wax ne képp koo xam ne dangay ngay dégloo bindii fi ci merloo yàlla borom bindii fi dana merloo bindii fi ci yow waaye képp koo xam ne yaa ngi merloo bindii fi ci luy bégloo yàlla dana làq ngërëmal borom bindii fi Cheikh Abdoul Ahad ak dundam dafa nekkoon yéwénu mbir boo xam ne la ko la taay mooy yërmande yàlla dafa meloon ci jamono kem ni jant bi mel ci àdduna ku daloon xelum taalibe yi la nit ñi ñépp bëgg ko def ko ndër laay def ko watal daan ko waxtaane fu ñu toll nit ku yàlla xorom la woon foo ko masaan ne jàkk rek sa xel mépp dellu ci yàlla fu mu masaan waxtaane xol yépp tooy xipp ak yàlla kàddoom yu dëgër yam daan sànni dafa daan dindi maru xol di mandale ci sëriñ Touba. ku yàlla joxoon ak dégg la ci alxuraan ku xamoon a sëñ Tuubaa la te matal ko sëkk ku mën a jàngale ak taalibe la woon te sax ca dàkk ku bëgg dëgg la woon ak nit ku dëggu xutbaam yu dal yam daan xutba ci dajam ak nit ñi dafa daan def jeexit ci seeni xol ay kàddoom daa meloon ci xol yi way dëggal ñi ni waamewu taw mel ci gàncax gu maral wala suuf su maral jëmmam ju tedd ja radiyallahu anhu daf daan suuxat ruuxi way texe ñi Cheikh Abdoul Ahad dundam gépp ay ngëneel la bisam bu nekk waxtaanu boppam la tayam ju nekk gàcceel na démbam ba dem fi jógee muy koo xam ne liggéeyal na sëñ Tuubaa ci diine ji liggéeyal ko ci yoon wi ak ci dëkk bi ak ci nit ñi loo xam ne dafa mel ne jihaad jihaad jooju la ko waykat ba doon wax yaa imaadi wa yaa qiyaasal ibaadi innani shaakirun lakum fi ljihaadi anta xaamin li ardi sayxil xadimi anta taxmin murida an fi inaadi ne ko radiya sayxu anka yaa kaasiran ka saati man yasribu tilaafil bilaadi rabbi kamil muraadahu yaa maliki hablahu maana waali ahli rashadi mu ne ko ngërëmal sa sëriñ ba di sëriñ Tuubaa yàlla na nekk ci yow Cheikh Abdoul Ahad yow mi nga xam ne yaa toj kaasi naan kat sàngara yi ne woon ci réew mi sunu boroom yow mi buuru buur yi yàlla na nga matale na meeri Cheikh Abdoul Ahad defal ko ak jubloom te may ko lim yéene ñooñ jub ñi xanaa la abi naas waxoon laysa ala llahi mustankarin an yajmaa al aalama fi waahidin doonul lu jomb ci yàlla lim teqalee ci bindéef yépp mu dajale ko jox ko kenn loolu bu mu jeexee Cheikh Abdoul Ahad gis ko ngëmam mu gëm sëñ Tuubaa ak wóolu gi mu ko wóolu ak yaakaar gi mu ko yaakaar ak doyloo gi moo taxoon mu fab loxoom teg ci dënnam wax ne tey jii daal maa ngi wax ne maane ne ne nag fu mu jógee moo ne duutu doon dara damaa bëgg ne maane tey ba bu bu ngeen déggee ñu ne ngeen xam ne du ma kenn su fekkee jëfe nañ lii ñu ne lii ñu ne maane liñ ne moo ne tey damaa bëgg wax ne maane li feeg ma di ko yëg Sëriñ Tuubaa rek laa fi nekkal jox naa ko sama dund jox naa ko sama dee jox naa ko sama yëngu jox naa ko sama dal ni mu ko joxe woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal di indi ngiñ lu rëy la Sëriñ Tuubaa gi ñoom cee njalbeenu euh, muqaddimatul xidma ne billahi alladi la ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Cheikh laa Ahad ngoog su la neexee nga firée ko la sëñ Tuubaa waxoon ne saaxa sawaaban lam yakun wala yakun li xayriya da si loxo kun fa yakun waaw yàlla mi borom kun fa yakun màng na jëme ci man yool boo xam ne mosula nekk di ñeel kenn ca la weesu te liy gublit kenn du ko jàmm kon nan tëb tuuti jeexal ko ci waaw lépp neex sax waaye nan nan nan nan tëb tuuti rek noonu la fi nekk kon ba ab liggéey mat mu génn àdduna wuji sunu boroom tabaraka wa taala fekki waajuram mu tedd wa bi mu génnee àdduna ci la mbokkam mu tedd ma alxaaji abdul asis si radiallahu anhu dikk toog fi kanamam tiim xabroom boobu jàkkaarloog moom di ko bakk di ko tagg di ko kañ naa ko laa taxsha yabna alxadimi almustafa alalami yaa abida al ahadi almawsuufi bilxidami yow Cheikh Abdoul Ahad yow miy jaamu kenn gi yow miy jaamu kenn gi jiitu di suñu borom tabaraka wa taala di doomi xaadimal mustafa mi ñëpp xam bul ragal mukk wa anta fi rahmatil mawla al ali fanam fi argadil aysi wa xayraati war raqami mu ne yow Cheikh Abdoul Ahad yaa ngi ci yërmande yàlla suñu borom de mën yërmande yàlla mu kawe mi kon nelawal gën jaa neexi nelaw ak yiw ak jikk ak ak njekk mu ne ko fu ma koy nelawe fi janatil xulde wala anwaari taxmurukum bi jaahi ahmada xayril urbi wal ajami mu ne ci janatul xulde ngay nelawe leer yi muur leen ci barkeb ahmad mi nga xam ne moo gën ko weex ak ku ñuul wala tara xayra ma yasturu saakiniha min al bushaaraati wal xayraati wal raqami mu ne ko yow Cheikh Abdoul Ahad yàlla boo gis lu dul luy bégloo ña fa dëkkee ci xeeti mbégte ak yiw bi jaahi ibni habibillahi walidikum xadimi xayril baraya man bayil xikami man bayil xikami mu ne ko ci barkeb doomi soppeeb yàlla bi xaadimu rasul mi sa waajur tey ballukaayu xikam yi wa nasalullaha rabbi an yuamilakum bi lutfi wal afi wal xufraani wal xikami mu ne moom alhaji Abdou Aziz mu ne noo ngi ñaan yàlla sunu boroom mu jëf leen dégg yéen ci ñeewanti akuk mbaal akuk njëgal mu ne jasaakumullahu wa rabbul arsi xaaliquna an sunnatil mustafa wa diine wal xesami mu ne yàlla ñu nu bind tey borom aras yàlla na leen fay ngën ci fay ci ñi ngeen taxawoo sunna si ak diine ji ab xayta baadaka madxan aylama al ulama yaa ajwada annaasi turran mufrad al mu ne yow Cheikh Abdoul Ahad yow ki gën a kawe borom xam-xam yi te gën a tabe nit ñépp bàyyi nga fi aw tagg de tagg wu mag ci sa ginnaaw waaye yow daal kenn rek nga ci yàlla sun borom mu ne kam min faqirin ka ibin xalla saaxatakum wa aaba yaskurukum kam kam kam wa kam wa mu ne bari na faqir bu wàcc sa bu ñàkk bu kër gi yow Cheikh Abdou Lahad te ba muy dellu muy ku sant mu ne waa jooje waa ñooñu sax ñaata lañu ñaata lañu ñaata lañu mu ne sa yattumu kulla ma qad kaana munhadiman min baadi walidukum yaa saafiya shaami mu ne lépp lu sa wajur wa taxawaloon te mu niru lu rab jangaat nga ko ba taxaw ba mu taxaw yow daal Cheikh Abdou Lahad kawe nga sag maas ne law kaana yafdi li man daanat maniyatuhu tufda biha indana min xumri niam mu ne su fekkoonte ne mënees naa jot ruuxu ku mu dellu si kon day lépp lu nu am daan ko ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla yokk xam-xam bi yàlla yaatal ko yàlla defal la wér defal la gudd fan defal la tawféex ci barke Serigne Touba xam nañu ne foofu fa mu toll ci moom noonu rek la mën a dem kon sëñ sëñ Mouhamed eh, ñëwal ñaari minute rek nga nuyu ci bokk ndax yaa ngi jiili dafa am lu leen yàlla boole ngeen bokk ko. joxe ko ci addi yàlla na leen koo boolee ngeen bokk ko te muy bokk te bokk des koy bokk kon bu yàlla dogalee nga teew fi am na kàdduy seere yu mën a bàyyi koo fi yow jëm si ci moom su noppee nag ñu jox jiili bu sant mbooloo mi su ko defee sëñ Saliou jàng su ko defee nu ñaan ñun ñëpp nu yewi kon sëñ Mohamed bisimilah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama mbokki jullit ji fi teew ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sunu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu borom baaxee tey kàddu yi mënoon naa ñàkk waaye mbokki Djily Samb yi nga xam ne ñoo fi nekk dama nekk ki nga xam ne moo fi mag ñoo bëgg a dëgëral seen taxawaay bii ngeen am ci bis bi ak seen séeréer si ngeen am ci bis bi ci Djily Samb ndax bu ñu nee nit ki kat ku baax la danuy déglu ndax am mbokk yi wax nañ ko mu déet kon mbokki Djily wax nañ ko bii li suñu borom da ko def mu njabooteeg jigéen waaye kenn ku nekk ci ñoom jiili xoolul sa borom kër li muy def ci yow disponibilité bii nga xam ne nag moom la am ni ngeen ko seeree doy na sëkk kon ñu ngi leen di seereel taxawaayam ci njaboot gi dëppoo na ak seen taxawaay bi nga xam ni moom ngeen firndeel taxawaayam ci société bi kon ñun ñooy sant rek mbooloo mi di leen sant ndax danoo seen toogaay bi ak seen teewaay bii ak seen yi ci ngeen bàyyi loolu day teraanga ci jiili te boo ko teree rek teral ngay bokkam kon ñu ngi leen di sant ñu ngi sant waa télévision gépp seen toogaay bi ak seen toilette bi ku ko xool xam ni li ngeen yëg ci jiili dëggal ngeen ko ndax nit boo amee bis bu la seetsee boo ko nee jàkk rek war ngaa xam ndax fonk na bis bi mu am fonk ko kon nag man mii di xalifa bi man maa leen mënta fay mënu ma leen a fay ci seen jiili mënu ma leen a fay ci soxna laama nii ngeen defoon ca bis soxna laama ba mu woote ko ngir jëmmi sañ Saliou mbakke ngeen teew ca ba tey jii kenn dootul wax bisub soxna laama ba bisub waa Treviso képp la ñuy wax kon loolu maa ngi ñaan sunu borom luy barke ci ñaari seetu yi nga xam ni muy Cheikh Mouhamadul Mansour ak sëñ Abdoul Ahad Mbacké ñaari seetu yi nga xam ni képp ku ci tàggatu ku ci waajal sa bopp doo dajeeg suñu borom mukk ba am kersa li ci des mooy wéy jur jiili sàmb de di alaaji Cheikh Sàmb dund na juróom-ñeent fukki at daanaka mën na maamu jiili la waaye séqoon na ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kóllëre goo xam ne ak jiili mbay mii ñu ko tuddee ca Conakry am na photo boo xam ne sax ànd nañ ñoom ñett yaakaar naa ne siiw na am nañ ñoom ñett kon bu ji li jëlee bis bi tudde ko ñaari kilifa yoo xam ne kenn ka Cheikh Abdoul Ahad la way juróom wa fa mu nekk ab xolam sedd na ndax alaaji Cheikh Samb Murid Saadix kenn ku nekk dégg na ko ku nekk diggante Jiili Mbay mi nga xam ne sunu borom da koo joxoon ñaar joxoon na ko saayir joxoon na ko baatin ñu bëri alal ji la ñu xamoon ci moom waaye góor gi alaj sa sàmb nee na ma su ma saana tey kaamilu alxuraan bu nee bu mu ubbee saayir nangam wala ci aaya nangam lay dal moom lay ubbi waaye alal ja dafa nëbboon xam-xamam waaye Cheikh Abdoul Ahad mii way juru jiili bis bu bu bu dikkoon ci kaw suuf mbaa fu mu tëdd dana xam ni jiili lii mu def làmbatoo ko kon la ca tegu mooy géwal bii mu ni mooy géwalub sallallahu alayhi wa loo gis rek ci àdduna am na fu mu sosoo maamam mu ñuy wax untu Fatim Fall moo nekkoon géwalub Lat Joor te li may wax xam naa ko moo jur ndeyam moo jur maamam sabu mu jur ndeyam moom keroog ba Lat Joor daanoo maam untu Fall dafa bokkoon ci ñi xam fañ ko def ba ko tubaab yi seetee taxamul foo mu nekk keroog lañ ko jàpp moom yóbbu maamam ndar yóbbu ko ndar ni ko yow moom xaw ma kan waaye danañ la tëj ba xam sa mbir nu muy tëddee te it bëgguñu ginnaaw la joor kenn ku fa yëngal dara ñu jàpp Anta Fall yóbbu ko mu ni kon fëq naa sama ndënd ma ndënd ma ma daan tëgg fëq naa ko dootuma ko tëggati dootuma ko dëgg tëggati ndax kenn ku ma koy tëggal jaratu ko ci ko àdduna te kenn ku nekk xam ni Lat Joor bañkat la woon te ku fonk am réewam la moom kese waroon naa tax ñu jàngee ci moom suñu borom dogal mu nekk ndar ñu téye ko prisonnier politique benn bis mu ànd ak prisonnier ba di doxantu wàññeeku romb am mbapat dégg fa am tëgg wàññeeku ni prisonnier bi ndax mën nga maa may ma laal tuuti mu ne ko ah waaw mu tëgg fa tëgg moo xam ni ba yaramam tàng mu dellu ca prison ba tëdd ba géwalu ndar ba mu xëyee suba teel woo ay doomam ñi leen biig de dégg naa fa tëgg moo xam ni dëkkul ci dëkk bi ñu ne ko benn prisonnier moo ko doon tëgg mu sol ay yéreem ndànk ba mu xëyee dem ci ci commandant bi nga xam ne moo nekkoon ci yooyu jamono ni ko damaa bëgg prisonnier bi damaa bëgg nga may ma ma génne ko mu ne ko lu tax mu ne ko damaa gis ci moom jiwu te ñun géwal képp koo xam ni gis nañ la nga mën a dollu suñu askan fierté ak aar dañ lay jël dugalu sunu njaboot mu siñanteeg moom kayit ni ko dinañ la bàyyi ndax booba jamono ba jëwalu dëkk boo gis am na doole ci dëkk ba mu nekk dañ koy bàyyi xel mu ni ko kon dañuy sartan rek yow bu dawee danañ la jàpp bu rëccee danañ la jàpp te saa bu ñu ko soxlaa bu ñu ñëwee te fekkuñu ko fa danañ la jàpp mu ni nangul naa leen ko ñu may ko mu génn mu nekk ak moom ay fan génne woo fukki doom ak ñeent yu jigéen gi woo maam mu jiili ni ko kay tànn ku la neex ma may la ko mu tànn ku jigéen ku ñuy wax maa gay ñu may ko ko mu am ci Amad Fall maa gay Amad Fall moo jur Amad Fall maa moo doon noddu kon xam na fëq na nënd ma moo doon nonnu ci jàkkay looda moo naan Amad Fall maa gay balaa rafet takku ndoom ba gàdduk sabar jëm loodo waaye loolu lépp da ko bàyyi di nodd ca jumaa ja tuub bàyyi lépp suñu borom dogal bi loolu amee kooko danuy tënk rek ndax histoire la waaye histoire loo gis baax na ci ndax ñu bari xamuñu siira sëñ Tuubaa danuy daanu rek di dem te ni ñu xamee siiratu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nii lañu war a xamee siiratu siira sëñ Tuubaa ak waa këram ndax dañuy dolli pas-pas ba noppi dañuy dolli xam suñu bopp te ñàkk xam sa bopp dara jële ko ci kuréel àddina bi loolu amee bi mu ñibbisee maamu kii moom mooy sabu faal moo jur ndeyam untu ma ko jur ba ma xamee ni liñ may wax dëgg la 1986 bi Lat Joor amee téeméeri at ci kaw suuf la ab Abdou Diouf ni dañuy defal ab euh, Lat Joor téeméeri at nan ma seetal géwëlam ba mu daan àndal ñu woo ñoom sëñ am sëñ euh, Assane Maroxee sàmb ak ñoom Abdoulaye Naar Samb yàlla na leen suñu borom yërëm ni leen seetal leen ñu ki mag ci surtout untu yi biñ ko seetee muy sama wayjur ñu boole ko ab 4-4 bis bu jot ñu jox ko ñaar fukki junni man nag nett lu ma loolu ñi nga xam ne ñooy historien Sénégal yi ñoo ni maamu jiili moo nekkoon géwëlub Lat Joor di jiili li mu mën ci tëgg ak fecc maa ko dàq waaye fëq na ne suñu dënn bu yàgg jëbal ko suñ Tuubaa loolu rekk ko jar waaye teraange gi nga xam ni moom moom sabu dox na diggante mag waa kër Cheikh Cheikh Al Hadj Malick loola mën naa koo nettali ndax sama baay daf ma nettali ni ma 1939 damaa ànd ak sama baay xiif metti lool ñu jóge Pire mu ne ma nan dem Tiwaawan ma ne ko bàyyi lu féet mu ne ko nañ dem Tiwaawan ma waxtaan ak samay sëriñ wayaan la wayaan la nee na bi ñu dikkee ñu ñëw ci kër sëriñ Babacar Si nee na bi ñu dikkee mu jox ko saako dugub ñu waxtaan ak moom nee na ma jàll ci sëriñ Mansour yàlla na suñu borom yokk seeni leer nee na mu jox ko saako ceeb nee na ñu jàll ñu dem ci sëñ euh, sëñ Abdou Aziz mu baax ma nee na bi ñu dikkee maa ngi fekk géwél yi wër ko ndax moom am tab rek la woon lu mu am da ko daan joxe daa mel ni sëñ Cheikh Mbacke lu mu am géwél yi wër ko balaa ngoon mu joxe ko nee bi ñu dikkee sama sama papa nuyoo mi ngi fekk naaru góor boo xam ne Elimanel Fall moo ko jox Alaaji Abdu kenn tekkeegul tënk ba nee na bi mu waxtaanee ak Alaaji mu ne ko sabu mu ne ko labbeeka mu ne ko jox naa la naaru góor yi mu ne ah, sant lool ni bëri bëgg a dem géwal yi ni ko sabu kaay tudd fas wi mun leen te ngeen maa te ngeen maa dimbali rek mu ni da tudd fas wi fas woo xam ne dañ la ko jox ñun géwél yi toog danga bàyyi ci ñun dara sama bàyyi nee na ma sa maam fu mu masaan a dugg ñuy jàng alxuraan dan naan wéer leen àlluwa yi borom alxuraan yu dënn ji dikk na loolu ko su borom dafa loon ñu ni ko da ngay tudd fas wi mu ne ah ginnaaw bëgg ngeen ko de dinaa ko def waaye de man de bu doon sa sama sago day fasu kilifa doo ko mën a tudd ñun ñu nee na ñu man ma ne ko ba ba mu ba ba mu ni kon tudd naa ko deuxième bu gaaw foofu rek laay mën a nag ndax li ci des moom du ko mën wax tudd naa ko deuxième bu gaaw kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu samay kàddu di ko jégalu kilifa yi may wax ci seen wet wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waa kon jërëjëf sëñ Mouhamed eh, li nga doon nett l'histoire la lu gudd la waaye li ñu ci mën a jàpp rek ñu jariñoo ko te xam ne temps bi moo xat te suba di alterné ñenn ñi war dem ci tool yi loolu rek moo ko waral Eh, kon sëñ jiili da ngay ñëw nga joxe yi ngay joxe ñu jox saaliwu mu yëkkati vingt minutes bu ko defee ñu ñaan nit ñi yewi ko mën a dellu ci kër yi ngir waajal suba ci tool yi incha allah sëñ Imaam Sané sëñ jiili mi ngi lay sant bu baax di la gërëm gis na sa taxawaay gis na ni nga jàppee yaag ñaan ko yéen ñëpp jàpp ngeen ci ci subaak léegi yéen a ngi ci jox ci seen alal ak seen kàttan nee na sant na leen bu baax gërëm na leen ci taxawaay kon sëñ jiili bisimilah. xam na daanaka wax ji moom jaratu sax guddal. ndax xol bu seddee xol bu feesee wax dootul bari te defe naa ne sama xol sedd na sama xol fees na ndax li koy wone mooy ñëpp bàyyi seen ittee ñëpp bàyyi li ñu amoon ci ay programme ñëw ci sama bis bi loolu dara waralu ko lu dul yéen yéen a baax man damay gërëm waa Veneto di gërëm waa télévision di leen wax ne leen day fiñ ma teg sax nekkuma fa waaw fi ñu ma teg nekkuma fa ñoom ñoo ma jàppale ndax ñoom laa fekk fii ci itali fekk fi ay nit ñoo xam def nañ fa ay at yu bëree bëri waaye ñu jël ma fonk ma ba lépp lu ñuy def ñu jël ma teg ma ci seen kanam loolu kenn mënu ko fay awma ma fenn sens interdit kon yéen mbooloo mi ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñi dem ak ñi toog ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ñi ñëwul ak ñu ñëw ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax xam naa ku ñëwul it sa yéene ñëw na kon loolu doy na lépp jarul ñuy nekk di guddal di gërëm ki nga xam ni moom mooy Sëñ Laat ibnu Serigne Moustapha Massamba ndax Serigne bi moom jàppewuma taalibe magam la ma jàppe amul lenn lu muy def mu ngi nii Mbàkke toog te duma ci laaj sama xalaat te xeebu ma fa muy liggéeye moom waxaale ma ko kon njort naa ne sëñ bi du ma fi nekk sax di guddal li may def rek mooy ñaanal la nga yàgg fi te wér Mbàkke te ñu bokk ko man loolu laa lay ñaanal ndax li nga ma sagal doy na ma sëkk Sëriñ Tuubaa mooy sa maam Sëriñ Masamba mooy sa maam loolu ku mu doy dara dootu la doy waaye nag di gërëm ahlu Mbàkke gi nga àndal yépp ñoom ñépp kenn ku ci nekk maa ngi lay sant di la gërëm di wax ne la maanaam sama xol sedd na maam Cheikh Anta mu Cheikh Mourtada ñoom ñëpp maa ngi leen di sant sëñ Modou Mamoun moom waxale wu ma ko moom suma suma sëriñ la suma xarit la waaw ndax mi ngi fii ci sàcc la waaye ñëpp xam nañu seetaanul taalibe yi waaw dara ñoru ko lulu sëriñ Tuubaa kenn mosu koo fekk ci loo xam ne ay caaxaan la kenn mosu koo fekk ci loo xam ay tappale la kon nag Mbàkke loolu nga sagal gox bi ñu ngi ñaan sa maam ju baax ja moom it loolu yàlla na la topp suñu xol sedd na lool ci yow di gërëm ñépp nag bàyyiwuma kenn di gërëm son excellence Rokhaya Ba léegi la fi jóge te démb ci ay jàngale fanaan yandu ci réunion waaye lépp da koo bàyyi daw ay kilomètres yu bëri ñëw fii am ak délégation bu mag boo xam ne ñoom Tafa Konaté bàyyiwul kenn ñoom Mamour jiite ñoom ñëpp ñu ngi nekk ci biir kon nag waaw kon loolu ñu ngi leen koy wax di xam ni sëñ Masouran Mbacké ñu ngi ci suñu biir te kenn du laaj ma suran defe naa ci ahlu Mbàkke moom moo demoon lijjanti titre foncier Touba kon defe naa kooku ki ñu tuddee defe naa lu bëree bëri la liggéey ci biir kër sëñ Touba pour gàttal daal it ma xam ne maa ngi am ñoo xam ne nag ndax foto bi foto bi 1953 la woon lii 53 la woon Serigne Abdoul moo toog nii Serigne Abdoul Ahad xalifa sëriñ Touba la woon dafa seeti woon sama waajur Conakry di Seex Sàmm waaw kii taxaw ci ginnaaw nii Jili Mbay la moom lañ ma tuddee muy milliardaire Sénégal sama waajur da ko yoroon ci suñu kër dix-huit ans yoo xam ni moo ko yor di ko jox añ ak reer ak ndékki kon bi ñu ma koy tuddee bu doon ma war a jënd xar mi kenn du ma njëtti kon xaalis taxul ñu tuddee ma ko déedéet waaw kon loolu nag laa bëggoon nit ñi xam ko xam ni kóllëre laay fedd li moo tax mu tuddee Sëñ Abdou Lahad bis bi Serigne Mansour nag moom it dafa amoon kóllëre ak sama waajur ndax ku xam Maar Fay ku xam Duudu Wàdd ku xam Daam Mansour ñoo ñëpp sëñ Mansour moo leen taaloon nga xam ne moom la ñuy wax borom courant bi moom moo leen taaloon branché leen te ñooñu samay wëllëre waajur la ñu woon loolu moo yóbbu sëñ Mansour ci sama waajur loolu laa doon fedd bi te dañ yàqu mu jéem réer nag nee nañu aw xas te loolu yàlla bum ñu dal kon loolu lañ doon faj yi leneen li ci des ma am sama jigéen boo xam ne dama dama ko bëgg a sant dolli ko ne ko lu mu góorgóorlu woon na ko dolli tey du ma ko sax sant moom waaye borom këram lay sant borom këram a ngi nii toog di Mamadou di Koné ñu gën koo xam ci oge daf ma bàyyi sama jigéen bee di mami doxul sama diggante ak moom benn yoon te su ko neexoon mu ne mami kat sama soxna la balaa muy wax ak kenn dina ma tàggu waaye amul lenn loo xam ne dina ko doxal sama diggante ak mami lu dul lu rafet ak lu baax këram laa dëkk daanaka mun naa wax ne su ma fandewul kër mami la su ma xiiful kër mami la su ma amul benn coono moom la waaye borom kër këram it moom lay sant di ko gërëm bëgg mu ñëw fekk ma fii nag ma jox ko lii nga xam ne nag dama ko wutal bëgg mu sol ko bu ko defee nag mu xam ni man mii di càmmiñu mami kat bëgg naa ci moom waaw ndax munoon nga maa bañ a boole bàyyi ak sama jigéen bi su la neexoon boo toogee ak moom nga ne ko jiili sàmbkat moytul ma ko waaye defoo loolu kon man awma lu ma lay fayee xanaa di la sant di la wax ne la yàlla na la bàyyi ak soxna si ba njaboot gi waaw auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maaliki yawmi diini iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinaa siraatal mustaqiima siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wala daalliina ne leen amiin barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiri sàmm sa jërëjëf allahumma salli ala sayyidina muhammadin lil faatimi ma ughliqa wal qaatimi ma sabaqa naasir al haqq bil haqq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 billahi maa la bëgg jili sax maa la bëgg waaw waaw xam nga lii lii kenn mënu koo fay waaw kon ode kii nag boo jógee kon rek nga eh, jël ko joxoon ma ko faal waaw joxoon ma ko oge moom sama lépp la sama rakk la sama lépp la waaw keneen ki ci topp nag mooy Mouhamed Fall waaw moom man ak moom ñun ñaar dañoo am kóllëre boo xam ne dafa yàgg sama mbokk la sama xarit la sama lépp la maa ngi moom ba ñu ànd ak léegi mi bëgg a jege ñeent fukki at doomam Pape Basa di taawam ñun ñoo àndoon ba Cees dem ngénte ji ko waaw loolu ñoo ko def kon soxnaam moom waxaalewu ma ko di soxna laama ndax ñun ñu naqaree nekkal lañ rawatina moom ndax ku bëgg lu baax la sëriñ tubaa rek ko ñor leneen ñoru ko looloo taxit moom it ma wan ko ne ko ak bokk moo tax ma def lii waaw kon faal mbubb mii boo jógee nga sol ko di ko doxantoo booy jàng xasida bi ñu topp nag mooy sëriñ abdul ahad moom mbakke xaw ma lu ma koy wax moom xanaa di ko di ko sant te di ko gërëm di ko wax ne ko man moom aw ma lu ma koy faye waaw aw ma sa fay waaw ndax mu mi yow yaa ma tàmmal at mu jox nga jox ma mbubb at mu jox mu jox ma mbubb mi ngi nii toog waaw waaye jàppewu ma taalibe nee naa leen magam la ma jàppe di gërëm waa kuréel bi nga xam ne ñoo ubbi bis bi waaye nag di gërëm nit ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon di liggéey liggéey bii ndax am na ñoo xam ñoo nekk ci ginnaaw te kenn gisu ku mel ni Badara Badara Maña nga xam ne moo doon def discours d'ouverture bi ku mel ni Émile Ndiaye mi ñuy toog bëgg sëñ Fall lool di sama wëlëre di sama xarit amul lenn lu muy def njaay te duma ci tàggu wala mu laaj ma ci sama xalaat kon moom it maa ngi koy bàyyeeg Serigne Fall mi nga xam moom la bëgg yàlla na ma ko sëñ Fall fayal ak Ibra Fall mami moom nee naa leen dootuma wax ci moom falaay tëjee discours bi di leen wax ne leen ñu ñaan yàlla ñu ñëpp bu déwénee ñu fekkoo kenn bañ koo wutee ci barke yonent bi ñu def ko ay déwén yu bëree bëree bëri waaw fii ñu fi toog ñëpp samay wëlër lañ samay xarit lañ ñoom daal xaw ma lu ma leen di wax xanaa ñu ñaan sëñ Tuubaa rek mu yàggal ñu fi tam mu ànd ak wér jërëjëf. jërëjëf sëñ Jiili sant nañ bu baax ñi nga teral ñëpp mel na ni ngi ci salle bi ñëpp nga bokk teral ndax as gor boo teralee kenn ci ñoom teral nga ñëpp rawatina nag teraanga ji nga jox Cheikh Abdoul Ahad moom Cheikh Moustapha moom seex ma sàmba nga xam ne mooy suñ lépp soo ko joxoon. juróomi dërëm mel na ne jox nga nu kenn ku nekk ci noonu juróomi dërëm kon teraanga ji nga ko teral mel na ne teral nga ko maam Cheikh Anta mi toog ci wetam nga xam ne magama xaritama ab gorooma ndax rakam maam Cheikh Anta mi moo ko yore mu soxna Faati Mbàkke moom seex Moustapha moom Cheikh Massamba ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon li nga def yàlla na la yàlla fay yàlla na yàlla guddal soo fan yàlla na yàlla wéral borom càkk borom bant bi saar nan la yow yàlla na yàlla guddal saw fan te te te wéral la waaw waaw yàlla na yàlla wéral la te guddal saw fan sa yéene yàlla na ko yàlla mottali ci barke sëñ Tuubaa kon ñu jox sëñ Saaliwu mu yëkkati lu mat vingt minutes sëriñ bi ñaan nu yewi ko sëñ Xaadim seen nan la noo ngi lay saare moom it daa nekkoon ci yitte waaye bu ngeen ma gisee rek gis ngeen daayira sëriñ Tuubaa bépp ndax jiili kenn du représenté daayira Xidmatul Xaadim fii ci jiili ndax jiili daa ànd ak ci biir liggéey bi fu ne mu ne fa lu ne mu ne ca lu ko woo mu nekk ca te du ca jóg feeg bàyyiwul kon fu mu ne nun la fa nekkal fu nu ne moom la nu fa nekkal kon na ngeen ko xamee noonu ne amul kenn kuy jii jiili ci Xidmatul Xadim ndax ci la bokk mbir nag boo ca bokkee nekk ca ca la la war nga ne ca kenn du la présenté kon sëñ Xadim noo ngi sant bu baax di gërëm di jox sëñ ab sëñ saaliw mu yëkkati luy tolloo ñaar fukki minute sëñ Oustaz Fall noo ngi jéggulu noo ngi lay saare bu baax di la dalal daa mel ne suba day dimanche waaye kon yow it ñu jox la nga barkeelu ci yonent bi ak Cheikh Hadji Malick waaye taabee xat waaye ñu ñaan yàlla beneen yoon mu yaatu nga xaj keneen xaj ba nuñ ko bëggee nun ñëpp nu amee ko noonu ci barke Sëñ Tuubaa di sant bu baax di gërëm yéen ñi fi nekk ñëpp ak ñi nga xam ne dañoo xaw a sori ba wàññi ko ñoom ñëpp yàlla nañ dëppoog dajee ngërëmal yàlla ak yonent bi ci barke bis bi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ maam Cheikh Anta yaag Cheikh Abdoul Ahad noo ngi leen di jéggalu jataay bu yàgg bi ndax Cheikh Abdoulaat mii daa war a départ dem Milan incha allah suba daa war a xëy liggéeyi mu toog fi ba ndëgë ni ngir Serigne Touba ak Rasulullah ak digganteem ak sëñ Jili loolu noo ngi ko ciy sant bu baax di ko ci gërëm di sant Serigne maam Cheikh Anta bu baax a baax di la xamal ne lii rek moo la war ndax sa waajur bu baax wa Cheikh Mouhamadul Mourtada li ko yónni woon ba Serigne Touba waxoon ne yaa waa si an wasaxte nii bi Mourtada yow mi aji yaatal yàlla na nga mu wàññi ko dugg ci àdduna du dugg Asie dugg Europe dem Afrique dem fu nekk yaatal diine islaam yi fu mu def kërug sëñ Tuubaa mu tuddee ko këru lislaam nga nekk ci lii yow it kon sa warugar yow mooy fii nga ne sañoo koo wàcc te boo fi wàccoon man mii bu ma la sañoon a téye téye sa mbubb na la sëñ bi bul jàll fii du saw yoon gannaaw Mbàkke yaa ngi ci noo ngi sant noo ngi gërëm di la ñaanal di sàkku nag ngeen ñaanal taalibe yi fi ne ak ñi fi jógee caméra bi a ngi koy filmo ku leen xool mbaa xool caméra bi mbaa jàkkaarloo gi naqar wu amoon yàlla na tàggale koog moom jàngoro ju ne woon ci moom yàlla na jeex ñàkk gu ne woon ci moom yàlla na toxu ku leen xool buy bëtam xonqee yàlla na weex ci barkeb ma sàmba Mbàkke noonu sant di gërëm di sàkku ngeen ñaanal taalibe yi su ko defee ñu yewi jataay bi nag ba déwén nag jàmm insha allah bisimilah. waa xanaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooloo mi di ci jiital ci nuyoo bi Cheikh Sidil di ci teg. mboolem kilifa yi fi teew ak yi amoon yéene teew fi ak mbooloo mi fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw euh, liñ fi wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy tëj ñaan liñ fi wax doy na sëkk yonent bi sallallahu bis yépp baax waaye nag bis bi moo ci gën biñ ko jagleel yépp baax nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa suñ borom moo ko yónni ci jaam ñi wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin amul lenn lu tax ñu yónni ko ci jaam yi lu dul yërmande yërmande jooja nag la doxal ba suñ boroom seereel ko ko ci alxuraanul karim tagg ko ci juddu tagg ko ci alal tagg ko ci lu ludul wa maa arsalnaaka illa rahmatan tagg ko ci ludul wa innaka laalaa xuluqin azim maanaam jikko ju rafet jikko ju rafet la ko tagge loolee nag xaadimu rasul donn ko ca ma ne kon ci tënk rek waa kër xaadimu rasul bu ñu nee waa kër xaadimu rasul rek mooy képp ku nam mu jëm ci yàlla rek nee naa toog yi nii rafet na de waaye nañ ko gën a dollee soppi bu baax maanaam toog yi nii ak melo yi rafet na waaye nañ gën a dollee soppi toog yi nii bu baax a baax ndax jamono bi moo ko laaj jamono la boo xam ne bu jaxasoo la bu doy waar ma ne toogin yi rafetoon na waaye nañ gën a dollee soppi toogin yi ndax yonent yàlla moom it sallallahu mi nga xam ne moom la suñu koog donn ci jikko ju rafet la suñu borom tagge woon wa innaka la ala xuluqin ñëw sànq ñu ngi ciy waxtaan ci ay melo yu bari yoo xam ne sëñ Mamor mu Cheikh Mamadul Murtada dina ciy faral di fàttali maanaam toogi nu ndaw ñi rawatina ndaw ñi sama moroomu ndaw ñi ci yu bare bari yoo xam ne jarul tudd ci micro waaye nañ dolli góorlu bu baax ci rafetalaat melo yi wax dëgg yàlla bëgg nañ bu baax a baax ndax bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ day wax ne fa man yuazi mawlidan fa man yuazi mawlida nabiyuna babil huda falaay falaa yuazabu hadda maanaam ku màggal guddeem gi maanaam gane àddunaam gi ëllëg duñ la xisaab kon ku ñu woo ci lu mel ni dañ ci daal di bég bu baax di ci sant yàlla dogal nag kii nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy sëriñu jiili mii nga xam ne moo moo moo ko moo moo ko tuddee Cheikh Abdoul Ahad ca woote bis bi di ku baax ku rafet jikko koo xam ne kenn mësu koo gis mu mer walla mu jàppante kenn lenn lu dul nekk ci li mu war a nekk maa ngi koy wax sànq ma ne ko wax dëgg waa kër sëñ ma sàmba de yoon wi yaatu na waaye ñoom de ay royuwaay lañ ci ak ànd nekk benn ak jikko bu rafet loolu nag lu am solo la wax dëgg yàlla moom mi ñu ko tuddee jiili fii nga teg sa tànk rek fii la doolil góorgóorlu ci bis bi ca gën a góor góorgóorlu ba mu gën a jëm ca kanam rek ndax bisub yonent bi sallallahu ñu woote ko ñëpp di ci jariñu ndaw ñi di ci roy ci ay jikkoom loolu yiwu màgg la xam naa xat na nit ñi war a liggéey waaye lépp lu ngeen fi def jal na ko suñu borom ful waaw njariñi àdduna ak yu àllaaxira yokk bu baax xéwal yi mu ngi nuyu consul yi itam di ko seereel rek li ma doon junjanteeg Cheikh Abdoul Ahad mi rek itali gii daal mbooloo fi nekk moo xamante ne néew na ci réew yu nekk ci àdduna bi mbooloo mu baax a fi nekk mbooloo muy liggéeyal seen réew mbooloo mu euh, ñu ci ëpp bokk tegu nañ ci aw yoon kon ña kaw muy njiitu réew mi ba ci ñoom ñi nañ gën a dolli bu baax itali ay matuwaay ci wàllu maanaam ubbi ay consulat ay consulat yeneen gën a yokk bu baax taxawaay bi xam naa yërën ci waaye ngeen gën a yokk bu baax Cheikh loolu ñu ngi leen koy euh, fàttali ngeen dolli cee jokkoo bu baax ak euh, consul ak ay kilifaam loolu réew mi aajowoo nañ ko bu baax a baax ndax ñun ñi nga xam ne fu ne dañ fay taxaw di dégg di gis xam nañ loolu kon yàlla yàlla yokk xew xewli ak kàttan yi lépp lu ñu fi def rek yàlla na ko yàlla nangu ci ful ko jërë ngeen jëfati xol bi dafa sedd xaside yi sëriñ Saaliwu Sekk mi daf ñoo daane ba li ñu waroon wax yëpp réeruñu waaye daal bëgg nañ bu baax a baax sëriñ Saaliwu Sekk jërë jëfati jërëjëf waaw kon ñu tàllal loxo yi sëriñ bi def ñaan bu ko defee ñu yewi ko bismillah amin amin amin amin déwén ak jàmm ñépp wér te kenn bañ a manqué ci barke Sëñ Tuubaa rabbi ya ahmadu ala muhammadi ali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi عليه خير صلوات سمدي بارك لي اللهم في حياتي وتلوادي وتنلادي